Ziguinchor di fàttali ni am na benn policier bi nga xamante ne euh, ñàkk na ay bakkanam ci manifestation yi euh, di Hassim Diédhiou euh, mi nga xamante ne police nee nañu accident la def waaye accident naam waaye ginnaaw accident boobe ay ndaw ñoo ko fekk fu mu tëdd daal di ko buntu xatal ba bu ñu koy rawalee ca l'hôpital régional noone la ñàkkee bakkanam donc ruelle bi ngeen di xool bi moo jëm ci kër Ousmane Sonko ca c'est seulement à, à, à, à, 100 mètres, à 100 mètres d'ici, Ousmane Sonko, fii la dëkk voilà lii la ñu mën a jàpp ci tënk Fatou Abdou Ndiaye Fall alors euh, leer na Abdourahmane Diallo merci beaucoup dañu koy tee en repérage puisque dinañ ñëw à plusieurs reprises foofu nga xamante ne kon mooy Ziguinchor jël fa lépp loo xam ne actualité la ñeel euh, li ñu fa nemmeeku muy cette tension bi nga xam ne mi ngi monté depuis ce matin euh, foofu nga xamante ne kon mooy dans le sud du pays alors maa ngi woon ci yow Bamba wax na ko sànq gis nga ko également des jeunes yoo xam ne dañu toog foofu assiégé pour défendre leur leader. ñu am fa takk der boo xamante ne également ñàkk na bakkanam malheureusement euh, noo ko jàngatee situation bi ni mu mel tey waaw euh, déjà li Abdourahmane di wax nii moom laa doon expliquer léegi sax mhm. euh, déjà dama doon wax ne man ndaw ñu ñoo gën a soxal man ndaw ñu ñoo gën a intéressé mooy man dama ne la vie elle est précieuse ñàkk sa bakkan da nga ko war joxe si loo xamante ne diine nangu na ko da nga ko joxe si loo xamante ne c'est no de la patri maam si euh, sa réew nga xamante ne si jaamu yàlla bokk nangu na ko man dama ne pour pourquoi on doit mourir pourquoi ñu mën a agsi ba fii tey ndaw ñi nga xamante ne ñooy suñu yaakaar ndaw ñi nga xamante ne tey ñooy avenir du Sénégal ndaw ñi pour man information dëgg moo leen manqué ndaw ñi aussi manipulation bi jaabaa jonge de gauche à droite moo andi lii yëpp pëccëxoo bi parce que tey mënuma comprendre que tey Fatou bu ñu tolloo ba si situation bii tey ñu war a mën a toog di compter ay morts au nom de quoi au nom de quoi Fatou Fatou ana ñuy deewoon en 2021 mois de mars bi ñooñu ba léegi tey est-ce que tey bu leen fekkoon si àllaaxira laaj leen tey est-ce que ñoom tey dee boobu ñu dee noonu est-ce ñoom tey amuñu si réccu amuñu si ay regret est-ce tey bu ñëwoon tey àdduna lañu defoon tey ba ñàkk seen bakkan est-ce que tey dinañ si nekkaat est-ce que tey ki nga xamante tey moo ñàkk bakkan si nga xamante mooy force de l'ordre yi nga xamante tey doon liggéey au nom de son pays est que tey moom mii nii tey waruñu mën a toog def ay njàngat du tax mu ñàkk bakkanam parce que li ma jàpp mooy parce que ndaw ñi dañoo yaakaar ne que dafa am ñeneen ñoo xamante ne dañoo contre ndaw ñi te loolu li fi manqué mooy dëkk bi dañoo dem ba léegi la vérité dëkk dëgg bi dëgg dëggantaat moo manqué moo tumaranke si réew Sénégal réew Sénégal la fi nekk malheureusement mooy ay par parloo dañoo dem ba léegi nit ñi dañuy par parloo te man nag damaa bëgg nag sa wax suma aqulahi taala que man nekkuma si ay par man li ma bëgg mooy ñu jéem a xool dëgg bi te wax li nga xamante ne te yàlla loolu la bëgg mooy waxal dëgg rek te yàlla tax mooy man dama jàpp ne tey euh, lan moo andi cooli ci nga xamante ne mooy benn Ousmane Sonko moom nekk na koo xamante ne ndaw ñu bëri jox nañ ko bopp mu nekk leader politique ñu respecté ko lool mais am na kenn ku jigéen koo xamante ne moom moo ne da koo accusé ci li nga xamante ne mooy wàllum viol muy tudd aji Sarr léegi nag kii di nga xamante ne mooy euh, yoon mu nga xamante ñun la fi nekkal wax naa ko ba tey ñun suñu institution ñëpp ko war a mën a jox cër parce que ñun ñuy ci nekk ay citoyen boo joxu cër say institution si réew mi nii mënatoo fee nekk benn li nga xamante ne mooy kilifa parce que pour nekk nga nekk kilifa institution yooyu ñoo la mën a teg si wàllum kilifa bu boobu léegi nag si kaw loolu la justice et la gendarmerie ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer suñu wàllum institution tey suñu force de l'ordre yi la moo tax tey ñu nekk si li nga xamante moo di télémédecine sori il fallait dire à ces jeunes là que ñoom dañoo am benn bu ñu joué ñoom force de l'ordre mooy kenn ne dañuy jëli ji Ousmane Sonko waxuñu kenn ne dañoo bëgg a dem faagaagal Ousmane Sonko waaye ndaw ñi dañoo yaakaar ne ñoom dañoo force de l'ordre dañoo ñëw pour faagaagal Ousmane Sonko alors que force de l'ordre yi ñoom Sénégalais yëpp lañ fi nekkal bàyyiñu kenn li tax ñoom ñu am rôle pour def ko mooy parce rôle bi nga xamante ne ñoom ñoo ko choisir mooy def maintien de l'ordre léegi nag lan moo tax tey ñu agsi ba fii mooy pourtant de kii di Ousmane Sonko dafa am ay prétention ay ambition nekk président de la République Sénégal moom moo toogoon ay jimi jamono de mu ne moom te bëgg na ñu dem si li nga xamante ne mooy procès ma déggul si ay waxam parce que li ma fi waxam la mu ne woon que yoon bu la woowee parce que nul ne au-dessus de la loi nga bañ a ñëw ak nga ñàkk ñëw di nga ñëw wuy ji force moom mu nekkoon loolu moo ko waxoon mu waxaatoon ne nañ mi ngi ñaan yàlla que kii di euh, Adji Sarr bu ko kenn faagaagal nañ ko téye bu baax a baax ndax mu ñëw si procès bi ndax moom sax pour man dama jàpp ne Ousmane Sonko avait l'occasion ko comploter ñun ñi di sénégalais na ñëw mu mën ñëw dekk ak ay ñu mu mën ñoo findeel am nañu ay preuve yu leer bi mën na ndox mu ngi nii donc l'occasion pour Ousmane Sonko c'était d'aller au pour jéem a ak ay avocat la ko avocat yi di jariñ bu nekkee mënuñu ko fexe ba wane sénégalais à leurs yeux que complot am na pour man Ousmane Sonko du fait que mu mën a juge Dakaaru Ndiaye dem ba dellu li nga xamante ne mooy tey sigi jigéen soo toog fa mooy Olof Ndiaye dafa ne faatu que ku foo jëm dellu fa nga jóge woon te man pour man loolu la fa Ousmane Sonko def tam dama jàpp sama lecture bi ma am mooy Ousmane Sonko tout simplement vient de mettre fin à ses ambitions présidentielles de 2024. Ah oui? parce que waaw dama jàpp ne Ousmane vient de mettre fin parce que damay déglu Ousmane ba mu nekkee Kër Massar dafa woote woon fii ne gassa gassa si procès Mame Mbaye Niang bi ak quelques si teg moom moo gën si kaw télé bi ànd ak ñi nga xamante ñoom ñoo ko war a yóbbu tribunal boobu de dafa jàppoon si biir xelam que ak conscient que kon dafa war a dem affronter pour mën am dëgg Ndiawé ak ay gàngooram bii nii mu bindaat terminus mu ne moom mi ngi si yoonu terminus terminus nag mooy Ousmane Sonko a mis fin li nga xamante ne mooy AC. moom man sama jàng laa la jox dama ne pour man. quand il dit terminus di nga comprendre dama ne quand il dit terminus dama jàpp ne. terminus avec qu'il a abandonné ses ambitions non dama ne man maay analyser. dama ne man maay analyser de dama ne dafa jël ay. waaw léegi analyse dama la ci dolli ne ah, autant mu jàpp ne moom personne ne peut l'empêcher de candidat pour la présidentielle 2024. man tamit xam nga le le commentaire est libre. xam nga le commentaire man man li ma jël mooy ba mu defee euh, gasta gasta. dafa wàcc si kaw bi jàmmaloo la si mujj ñëpp xam nañ ko kenn nelawul fii mu waxaat terminus ma gis ko mu replié wu dem ba si ngeen si te yoon woo ko mun a du peut-être amagul envie wuy si dama jàpp ne il a mis fin à ses ambitions euh, li nga xam présidentielle parce que ku bëgg day nekk réew mi nan nga mën a nekkee président jiite réew mi réew boo xamante ne yow bis boo nekkee fa ngay seedee fa ngay waatee mooy ay magistrat fa ngay waatee mooy ay justice fa ngay waatee woole na la ñu ñu àtte nga amul occasion wan ñëpp ne ñii dañ maa compris nga ne yow doo wuy si pour man nag ku mënul ñëw wuy si yoon a jiitee réew boo xamante ne peut-être que loi yi moo ko tënk dama jàpp ne pour man occasion la pour mu dem te man wax moo am a yaakaar waaye ñun pour ñu xam ko ñu sénégalais yi nga xamante ne nekkuñu si ay parparloo dëgg rek moo ñu intéressé ah, fa lekk ñu dem au tribunal au procès pour que Adji Sarr wane li mu am mhm. Ousmane Sow ay avocat ñu défendre li nga xamante mooy seen cause wane au Sénégal que c'est un complot mais malheureusement comme il ne veut pas aller réellement au procès Ousmane Sonko pour man amatul benn argument et réellement ñi koy topp war nañoo mën a xoolaat est-ce que réellement sax Ousmane Sonko mii réellement amati ay ambition te ban bañ su may daan moo ko maye. mooy dafa am lu ko laa lay wax ne yow jour bi mu waxee moo boobu terminus c'est le même jour euh, qu'il réitère son engagement. ak le fait qu'il sera candidat pour la présidentielle 2024 pourquoi jël benn bi bàyyi beneen moo tax ma ne man damaa damaa damaa analyser acte analyser xam nga politicien y' a que y' a y' a ce qu'on bu toogee ne kenn mënumaa tee ma nekk candidat loolu waxi politique la wax boo xamante ne day wane politicien que je suis là j'existe et je tout pour exister mais acte yi mu mooy dafa replié wu dem ba fi mu toll kenn gis ko te nee na du wuy si yoon te Ousmane Sonko pour man sénégalais bu ñu toogoon bañ a nekk si parparloo nan nga nekk si ab réew mosuma ko gis ku bëgg nekk président ñu mu yoon nga ne loolu duñ ko àtte wala loolu duñ ko leeral loolu nag mënul mën a nekk parce que foog ñu leeral lool bala nga ñoo jiitee léegi nag fi may daanale ba daanal mooy man dama jàpp aussi que euh, justice sénégalaise aussi bokk na si li fi jot a xew si affaire Mame Mbaye Niang ñu koy pamte pamte si oto yi di ko xaw a def li nga xamante ne moom Ousmane Sonko di doole ba nga xamante ne lu méttee mét kenn waxu si bokk na si loo xamante ne jàpp ne ne kon bu demaatee peut-être que loolu dina ko dalaat ñu jéem a xool nan toujours ñaar ñi nga xamante ne ñoo séq benn procès que ñu encadre à gauche encadre à a senti que à chaque fois dañuy encadrer tout sama Mame Mbaye Niang dañuy encadrer ki nga xamante mooy Adji Sarr mais Ousmane Sonko souvent dañ koy néewal doole te lii bokk na si li tax mu gën a delluwaat ginnaaw te pour man nag il est temps que ñu leeral lii pour sénégalais yi xam parce que képp ku mënti wax lu nga mënti wax tant que procès bi amul da nga wax li nga yaakaar rek mais sa aqulay taala xamu euh, bu ñu waxee en matière criminelle mi ngi wax ne lan moo tax ndaw yi dem moom Bamba euh, assiégé euh, buntu kër Ousmane Sonko mm. te pourtant kenn waxu leen ne dañu koy jëli mais en matière criminelle dañuy wax ne Euh, ki nga xamante ne moom la ñu moom war a taxaw ci kanamu yoon au plus tard la veille dafa war a présenter une ordonnance de prise de corps est-ce que du loolu la ndaw yi di dànkaafu aujourd'hui moom moo tax ñu dem euh, assiégé fi nga xam ne moom mooy këram ci Ziguinchor. Euh, de masawu policier bi nga xam ne wàcc na ci liggéey mhm. Mhm. selon la communiqué bu ministère de l'intérieur que amoo ci benn manifestation manifestant boo xam ne lor nga ko ba mu faatu policier bi ci la newoon oto police bi la newoon yàlla dogal mu daanu benn blindé oto police dal ci jaar ci kawam ñu yóbbu ko hôpital mu faatu di ko déplorer nag et encore un mort de plus ci mbirum manifestation boo xamante ne